waaw man maay Abdou Abdoulaye Diouf ñuy wax Abdou Fall maa ngi demoon Gambie 85 ba 87 ci la am problème boo xamante nii dafa am koo xamante nii euh, dañ ko téewoon ak sàcc léegi bi nga xamante nii yuuxu nañ ko dóor nañ ko yuuxu nañ ko léegi mu daw ñu oote yuuxu ko sàcc soo ci lañ ko jàpp bi ñu koy dóor am na ku ñëw ne moom nekkul sàcc ñu ne ko ah kii ñun dañu dénk kër gi léegi bi ñu dénkee kër gi kon kii su waree indi koo xamante nii moom dafa nekk koo xamante nii euh, daf ko indi fa mun a gardien kon daf ñu ko war a wax ñun nag lañ mën a xamee loolu loolu mu ñu fa yóbbuwoon waaye leneen buñ fa parce que ñun foofu lañ dëkk soo bi nga xamante ne nag ñoon téye nañu ca élection ñu ne waa ji dafa dee soo ñu jël ñu tëj ñu ne dañ ñu ate ate ñu ne dañ war a rey juge bi daf ñu wax ne di ngeen dem foofu dañ leen jox seen lekk seen naan ak seen lépp lu ñu leen war a jox ba waxtu bi ñu leen war a rey jot ñu rey leen waaye yàlla def na loolu tamit amul ñu génnee loolu def ñu avis léegi ñoom ñu nekk foofu 27 ans ci biir 27 ans boobu ñu ngi sab sa suñu 28 ans. dañ laa jëkk a condamné à mort. waaw dañ ma jëkk a condamné à mort après ñu ñu ñu génne boobu def ko à vie sa giiru dund soo bi nga xamante ne nag moom président Diamé ñu ngi seetaat mbir mi mu gis ne daal moom dafa war a baalal nit baalal na baalal nit moom tam ci la ñu baalal wax dëgg ñun dañu dem liggéey rek ñëw ba ñu ne ñu ñun bàyyi nañu man sax gëmma parce que dafa yàgg. loo doon def ca prison ma nekkoon koo xamante ni maa ngi doon liggéey maa nekkoon chef bi nga xamante ni moo yore lépp loo xamante ni dañ koo distribuer muy lekk muy reer ak añ ak ndekki ci prison yëpp soo man maa amee loolu. soo ci loolu laay yëngatu di ci yëngatu maa ngi commencé 1993 euh, laa commencé liggéey ci loolu ba 2015. Euh, le 22 juillet bi nga xam ne président Diame mu ngay def feetam bi ñu ko wax 22 July mu le 22 juillet ci la ñu baalal soo le 22 le 23 le 24 vendredi juillet ci lañ diina ñun ñëpp ñu bàyyi ñu ñu ñu xam ne fi ne mu am nañ suñu bopp ñun ci lañ jógee foofu dem bi demee Banjul ah ñu oo ambassade bi ci la ambassade bi ñëw mu jël oto boole ci ñun ñëpp ñun 26 personnes la ñu woon. soo bi ñu nekkee 26 personnes mu jël mu ne kenn du dem fenn ñëpp dañu dem ba Dakar soo ñu ñëw ba Dakar ñu indi ñu centrale. ñu xëy ñu ne ñu dee du fii ñu dem fële cité police soo foofu lañ jël suñu empreinte yëpp am na sax koo xamante ni mu amee immigration ñëw na fa jox na kenn ku ci nekk 11000 euh, francs pour mu daal ko def paas am na keneen tamit koo xamante ni ñëwoon na nga xam ne volonté la rek mu ñëw jox ñu 25000 francs waaye xam nga 25000 francs juróom ñaar fukk ak juróom-benn man may leen jël leen ma jox leen ko ngir yàlla parce que duñ ko loolu dafa duti daal a séddoo man bala naa leen suma bos joxal bu set guy ñoo ko bokk soo may tam man man fii léegi la nga amoon Banjul nag ndax indaale nga dara. waaw indaale ma dara kenn amul jot bi dara man li ma fa amoon too commencé woon naa fa ba commencé développe ay xar xar yi commencé am doom ganaar yi commencé euh, développe yëpp daal aw ma su ma kayit yeeg suma lépp dafa yàqu lépp dara desul. looy dénk autorité Sénégal yi. man daal li ma leen a dénk mooy ne dëgg kenn ku ci nekk da nga uti woon pour am pour mu ngeen mën a toppatoo sa bopp ak sa njaboot ak ñi nga xamante ne mooy sa réew léegi. ñooñu nañuy bàyyi xel di bàyyi xel ñi nga xamante nii comme ñun dañuy dañuy dem te Sénégal dafa rëy nit ñi dañ bëri teew du ñu mën a toog ñëpp ci dëkk bi foog ñuy génna soo suñu génnee nag am na ñoo xamante ni représentant président bi la mooy ambassadeurs yi ak yu mel noonu war nañu nemme ko place yu mel noonu mën a xam jafe-jafe nit ñi parce que ñun loolu dafa jafe foofu tool pour gis ambassadeur waaye kenn rek mu ñu ko fa defal mu Babacar Diagne maa ngi koo gërëm ci li mu def noonu parce lu baax la parce que brève patriotique la la def foofu waaye à loolu mënuñoo am leneen kon war nañu góorgóorlu bu baax mun ñoo dimbali ba ambassades yi mun a dem ci place yi mel noonu mun a dem di gisee si ñoom ambassade Nigeria Nigeria dama ko respecte te dama gis ne ñoom dañuy bëgg seen nit waxtu bu ne dañuy ñëw di la indil even paracétamol garab sax dañ leen ko indil lu ne dañ leen ko dee indil foofu ci man gis naa loo xam naa waaye ñun ñoo gën a je kon ñun loolu ci ñun la war gën a yelloo kon daal maa gi ñu xam ne ñun ay citoyen lañ yu baax parce que dañ demoon uti lu baax pour mën a ñëwaat suñu réew mën a bokk ci développement bi waaye lii moo ngi koy ñaan di ko sànni pour ñu mën a bàyyi xel loolu te su ko defee loolu daal dina nekk loo xamante am ñoo xamante amuñ kenn ku leen dimbali amuñ kenn yaakaaruñ kenn te ñoom ci place yi mel noonu